ñu ñëw ci ak njabootam doom ju baax nag am na solo lool ndax nit bu fi bàyyi ko bokk na ci la koy fekk ci bàmmeelam ci xeeti yi wi ñaanuk doomam xam ngeen ni yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama ku fonkoon ak njabootam la te amoon ci ñoom yërmane gis ngeen ba doomam ibrahima faatoo te muy jooy ngir yërëm ko gis ngeen ñaari sëtam yooyu nim leen fonke woon muy xoseynu ak xasan gis ngeen bi sayduna aliyu karamallahu wàccahoo bëggee wutal sayduna fatimatu fatimatu awujju la yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama wax te mooy fatimatu aw dog la wo bowoo ci man lu ko metti dana ma metti am na bis mu fóon moom yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama xasan ab sëtam ku ñuy wax aqora ibnu habis ni ko man de am naa fukki doom yoo xam ni mësuma cee foon kenn mu ni ko kudul yërëme kenn du la yërëm Sëriñ Tuubaa xaadalahum lawo xaadalahu lawo maxtaar lawo gis nañu muy ñaan boroomam doom yu baax wa hablana dhurriyatan tuddimu al amala saaliha yaa xadimu lii nag moo waral sayxu ibrahima fonkoon ak njabootam te daa leen toppatoo sëriñ Amsatu neena ma bisi hit yi da leen daa wutal ay jàllabi yu rafet su ko defee buy génn ngir jëm ca jullikaay ba ànd ak ñoom ay doomam tànnal na leen ay tur yu rafet ndax turi saxaaba yi la leen daa tudde mbaa yonente bi mbaa yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sallama mbaa mbokki boppam ku ci ku ci mata dal yóbbu na la ca daara nga jàngi alxuraan soo ca noppee mu jàng loola xam-xam soo ca noppee mu sancal la daara kon fañ ko jaarale rek fala leen jaarale sëriñ saalihu nag danay faral di wax ni nit ki bu la jaarale fañ ko jaarale naxu la loolee nag falak fonkeel mën a yam ci njaboot njaboot gu jigéen yi itam ku ci toll ci war a dem kër mu boole laa koo nawloonteel ci diine ak xaara gis ngeen ñi daan jàng xam-xam ci moom bari nañu ñum jox doomam bañ noppee ñii nag ñooy njaboot gu góor gi sëriñ Moodu Hawa Balla mi ngi gane adduna mille huit cent quatre-vingt-seize wàcc ab liggéey mille neuf cent quatre-vingt-deux moom nag ni ko sëriñ Basiiru waxe rek amul soxla ci xuy-xuyi adduna la ko ñoroon mooy àggale mbooleem naal yi fi baayam bàyyi woon liggéey na ci dëkk bi ak njaboot gi liggéey yu mag ndax forage bi moo ko fi def jumaa ji noonu jamononte naag Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo fanweeri at ak benn daana ànd ak boroom daaru di ko fekk njaareem Sëriñ Mustapha Habsa mooy ab xalifaam attalallahu baqaahu fiina amin Sëriñ Cheikh Hawa Balla moom mi ngi gane adduna mille neuf cent wàcc ab liggéey mille neuf cent soixante-seize moom nag ku teeloon a am barke la ak mbooloo daaru ma naan lëfeete woon bim fi jugee it fa lañ ko denc alhaaji maam Ceerno mooy xalifaam moom it tabax na fa jumaa ju mag ginnaawam fa jasaahullahu xayral jasaayi moom sëriñ Cheikh Awa Balla maam Cheikh Anta lañ ko tudde sëriñ Ibra Fat Ñang moom nag sëriñ Abdou Xuddoos nee na ma at la ko sëriñ Muhammadu Awa Balla mage yaakaar naa bàyyiwu fi doom moom nag mook sëriñ abdourahman ñoo bokk ndey sëriñ abdourahman moom nag jaamu katub yàlla bu mag la woon wàcc na ab liggéey ñu denc ko foofee ca daarul mannaan ca tuubaa la féete woon ba fii mu ne fa la njabootam nekk wax na nu ñuy maam ceerno mas na koo jiiteloo ak julli xalifaam nag mooy sëriñ mbàkke daba saar sëriñ muhammadul habib moom nag sëriñ Mamor Anta Sëri way juru maam Ceerno lañ ko tudde wàcc na liggéey atum mille neuf cent soixante ku rafetoon am mbind la wax nañu ñi sax kaamil bu mu doon yut sëriñ Tuubaa xaadalaw laaw maxtaar lawo taseeg soxna may kabirat moomin muy andi kaamil loolaa waral ñu jox ko soxna may soxna may moomu nag mooy waajuru sëriñ Mustapha may mii nga xam ni mooy xalifab sëriñ muhammadul habib fii mu ne atalallahu baqaahu moom sëriñ muhammadul habib nag moo andi école français ci Daarul Muxti doo nit wàllu wala réew Serigne Fallou lool Serigne Abdou Abdul Khoudous moom nag mook Serigne Mouhamadul Habib ak Serigne Mahmoudan ak Soxna Astu ñoo bokk ndey mooy xalifab njabootug borom daaru moom nag ku bëri xam-xam la te ragal yàlla mi ngi gane adduna bi Serigne Touba xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo nekkee jolof jàng na xam-xam ci Serigne Mouhamadou Lamine Gay jàmmooy ku yeewu la te xam adduna Serigne Mouhamadou Awa Balla diirub lu muy nekk xalifa moom la defoon loxom nday jooram Serigne Mahmoudam moom nag ku bëri woon xam-xam la rawante naag xam-xamu miraas boroom xam-xam yu bari génn nañ daaraam joojee di koso jaamukatu yàlla bu sàmm la woon ab yarekat bu mag la woon wàcc na ab liggéey 1976 Serigne Mamor Mbacke mooy ab xalifaam ma nga foofee ca koso Serigne Faati Fall moom nag Serigne Touba xaadarohoo lahu maxtaara lahoo lañ ko tudde wax nañu ni ku juboo woon ak maam Ceerno la mook soxna Faati Ceerno ñoo bokk ndey seen waajur ci waa Pir la bokk mi ngi wàcc liggéey atum 1957 Serigne Abdou Jamil moom nag moo njëkkoon a féete kaso am fa ñaari at ginnaaw ba la fa sëriñ mahmudan sanc sëriñ koso mbàkke mooy ab xalifaam mi ngi wàcc liggéey atum 1943 sëriñ habibullahi moom nag maam balla aysa lañ ko tudde doomam ju mag mooy sëriñ cheikh mbàkke sëriñ usmaan moom mi ngi gën a siiwe ci sëriñ usmaan nooreeni ku amoon barke la wala jinkooli njinkooli la ko maam Ceerno féetale woon ci 1941 mi ngi wàcc liggéey 1981 Sëriñ Moodu Kara mooy ab xalifaam fee fii mu ne moom it ku bëri mbooloo la Sëriñ Aydara moom nag wax nañu ni ku nuru woon maam Ceerno la lool Xaalima Jaxate Kala moo juru way juram wu jigéen mi ngi wàcc ab liggéey atum 1994 maam Ceerno Mbàkke mooy ab xalifaam sëriñ Abbas moom it ko maanu la te noppi sëriñ Hamsatu moom nag sëriñ Masamba Jóob Saam moo jur way juram wu jigéen mooy imaami Daarul Muxti ku bëri xam-xam la te fonk jaamu yàlla ay toolam mooy duli gil ku fonk wàllu càmm la max naa yarug jur sëriñ Soxay bu moom nag dafee teel a jóge taxul ma xam kum fi bàyyi ci njaboot mook sëriñ Hamsa ñoo bokk ndey sëriñ Cheikh Xadi moom it ko baax la te woyof wax nañu ni ku nuru maam Ceerno kàddu la ginnaaw sëriñ Abdu Xuddoos moo ci mag ay toolam nag mooy ñaari daqaar ku taxoo woon ak sëriñ Muhammadu Awa Balla la woon fii mu ne kóllëre googee mi ngi koy doxal ci sëriñ Mustapha Hamsa sëriñ Mbàkke Anta moom it ku baaxoon la te woyof te xamoon adduna lool jaxasoo woon ak sëriñ Muhammadu Awa Balla lool ginnaaw bi fi sëriñ Moodu jugee mu nekk ak sëriñ Mustapha Habsa ca noona mi ngi wàcc ab liggéey atum 1988 maam Ceerno Mbàkke mooy ab xalifaam sëriñ Daam Faati moom nag Ahmadu Faati mi bokk ak maam Ceerno ndey ak baay lañ ko tudde mi ngi wàcc liggéey atum 1993 maam Ceerno Mbàkke mooy ab xalifaam sëriñ Miqdaat moom nag mook sëriñ Mbàkke Xanta ak sëriñ Xaalit ñoo bokk ndey mi ngi wàcc liggéey 1996 maam Ceerno Mbàkke mooy ab xalifaam sëriñ Basiiru moom it ku baax la ku woyof ku bëri xam-xam ci boroom xam-xam yi yi génn daare sëriñ Mahmoudan koso la bokk moom laa xam ci ku njëkk a taalif ci dundug maam Ceerno def ko arab ak wolof te moo tudd a cheikhu Ibrahima fi ayyaamihil xaalida ay toolam nag mooy kër àlla sëriñ Subayru moom it mi ngi wàcce liggéey 1988 mook soxna say Mbàkke ñoo bokk ndey maam Ceerno Mbàkke mooy ab xalifaam sëriñ Omar moom it dafee teel a jóge taxul ma xam doom jum fi bàyyi wàcc na liggéey atum 1952 ay toolam mi ngi nekkoon layaabe sëriñ xaalit moom nag moo gën a doon gone ci waa kër maam Ceerno yu góor yi moom it ku baax la te woyof ay toolam mi ngi nekke kër kër juma sekk soxna faati Ceerno moom nag mook sëriñ faati faal ñoo bokk ndey sëriñ Mouhamadou Moustapha moo ko yoroon am ak moom soxna daba Mbàkke ginnaaw ba sëriñ Basiiru yor ko am ca soxna ami Mbàkke moom soxna faati nag njaareem la la féete woon doomam ju mag mooy soxna daba mbàkke fii mu ne moo féete njaareem soxna faati ceerno moom nag mooy taawu maam ceerno mooy wayjuru sëriñ abdu samad busa mi nga xam ni kenn la ci ñiy jiite jumaay tuuba soxna faati ceerno moom nag mook sëriñ muhammadu awa balla ñoo bokk ndey sëriñ amsatu jaxate moo ko yoroon mooy wayjuru soxna say jaxate mi wayjuru sëriñ seex say muy mu sëriñ Suaybu radiallahu taala anhu wa nafaana bihi amin soxna astu ceerno moom nag mook sëriñ Abdu Xuddoos ñoo bokk ndey alhaaji Muhammadu Fadil moo ko yoroon am naa moom soxna abi mi wayjuru sëriñ Cheikh abi mu sëriñ Abdurahman për soxna say Mbàkke moom nag mook sëriñ Subayru ñoo bokk ndey sëriñ Moor Doj moo ko yoroon soxna abi Mbàkke moom nag mook sëriñ Cheikh Adi ñoo bokk ndey ginnaaw bi sëriñ Cheikh Silla diwaan yoroon na ko ginnaaw bi sëriñ Lo Galu di kenn ci taalibe yu mag yi yoraat ko soxna Daba Mbàkke moom nag sëriñ Asaynu Silla diwaan moo ko yoroon waaye ginnaaw bi Tuuba la mujj féete fa la këram nekk doomam ju mag mooy sëriñ Ceerno Silla soxna Astu Mbàkke moom nag mi ngi gën a siiwe soxna Astu Gànnaar sëriñ ibra loo ngaabu moo ko yoroon ginnaaw bi alhaaji ceerno njaay di kenn ci magi taalibe yi yoraat ko njëreem nag la féete woon waaye ginnaaw bi ñibbisi na tuuba fa la këram nekk mi ngi wàcc liggéey atum 2001 ñu denc ko tuuba doomam ju mag mooy soxna kubra loo soxna busa mbàkke sëriñ muxtaar bintaloo moo ko yoroon mook sëriñ abdourahman mbàkke ñoo bokk ndey ak baay mooy waajuru sëriñ Seexuna Lo ak soxna Astu Lo mi waajuru sëriñ Moodu Abdul Xaadir